aaudu billahi min alsheytaani fi kulli mawdihin wa fi l awtaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawalil wali laqi lisaani waxlulan min xulun xade wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaanal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 mu tukkee ci njàngaleem Serigne Touba Xaadimu Rasul ci Masaalikul Jinaan te mooy dundal waxtu Serigne Touba dafa wax ne na ngay dundal waxtu yi ci ay naafila gannaaw bu farata yi jàllee ndax farata yi moom dañ koo gàll sa kaw waaye nag bu jàllee waxtu yi nga moomal sa bopp nee na bu ko jàppee ab naflaay nanga nga jóg naafila ji naafila nag mooy dolli lu baax ci ay weer dëkk ay zikkar ak ay tafakkur maanaam di xalaat sa borom ak ay mbindeefam ak i mayam ak i xéewalam di xalaat bu baax ay xéewalam ak mbugalam yooyu yëpp dana tax nga boole ragal ko ak yaakaar ko ak bëgg ko nee na na ngay saraxi bu baax nee na na jël sa alal it di ko jëmee ñi ko aajawoo donte alal dafa sax ci xol waaye dee ko labal doo ko dee ko lebal suñu borom tabaraka wa la rawatina nag bis yi nga xam ne nii ñoo gën ci bis yi te ci lañ toll muy shahru ramadan al mubarak nee na del jëmee sa wërsëg it ci jege ñaal yi maanaam sa mbokki laqrab yi sa say mbokki deret bul def sàmba àllar ñu lay dégg ngay maye ca àll ba te sa mbokk mu la jege di bëgg a dee nee na dee ko jëmee it ci nit ñu baax ñi maanaam boroom xam-xam yi kilifa diine yi sa alal dee ko jëmee ci ñoom rawatina bis yu baax yi ñu toll muy weeru koor nee itam jullit ñi dee leen jëme aw yiw maanaam del del àggale aw yiw ci ñoom ak mbégte fexeel ba jullit bu la gis mbaa mu dégg rek na bég ci lu neex yàlla nee na bul merloo jullit ñi mukk bu leen jëmee itam aw ay ndax nit bu fekkee ne mënatoo koo jëmee aw yiw bégalatoo ko itam fexeel ba bu ko tiitloo ko jàqloo wala nga koy indil ay problème te yit nee na na nga wut sa dogi bopp yoo xam da nga koy seq ak sa borom say ndaxañteef maanaam sa rootum guddi moo xam ne nii kenn du ko yëg kudul sa borom ci ay wér yoo xam da nga koo seq ak moom donte dafa néew sax eh, nee na bu ëllëgee day ci bisub njàqare ba bis ba nga xam ne nii ay jafe-jafe rek am Euh, doo ko rëcc te it nee na maa ngi lay eh, maa ngi lay ñaaxit ci ngay sellal li ngay jëf na yàlla rek tax na ci njissal jeex takk te it dee ko na bu mbindeef yi ndax ñoom doonuñ ci dara bu ëllëgee bu ñu lay fay danañ boole fay la ak tagg la ndax nee na li ëpp ci jëfi nit ñi day euh, du leen jariñ dara ak lu mu bari bari ndax njissal da ciy am ndax nit ñi euh, dañ ciy xam dara maanaam dañ koy feeñal ci kanam nit ñi moo tax mu ne wa axmiril awqaata bin nawaafili baad al faraidi bila taxaafuli wa hakasa bi sawmi wal awraadi wa dikri wal fikrati fi tamaadi wa bi tasadduqi wa jazbil maali ila zawil haaji li wajhil waali laa siyama fadilatu al ayaami maha al aqaaribi wa bil idaami wal iktisaabi abadan bil amali bi niyati al gayri bi gayri malali wa misluha isaalu xayrin aw suruur li muslimin duna garaamin wa shuruur waqba li nafsika ala tamaadi daqirat al wirdi min al awraadi walaw xalilan li yakuna fi gadi manfaatan yowmal jawa wan nakadi waxris ala al ixlaasi wal ixfaai anil wara tumdax daral jazaai fa jullu ma baana lahum minhu fala yaksuru nafahu gadan is yujita la kon nañ farlu bu baax di def ay yiw te di ko nëbbu am na feneen fu mu waxee eh, nëbbu say yiw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 in uridu illa al islaha ma stataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu